salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar mbokk yi ak digital store coono wàcc na leen jaaxle jeex na digital store indi tina gamme smartphone ak tablette android yu bees tax dëgër këcc te ay téléphone yoo xamante ni entreprise bii di Koskol daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala T5 wala s juróomi at lañ leen garantie looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel gaamu téléphone yi M5 X5 T5 ak S4 di ay téléphones yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq mën ngeen a dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la wala géej wala sax ngay sàmmi wala ngay dem tool wala ngay sport wala ngay liggéey ci chantier dara du leen yàq daw leen gaaw ci sunu boutique showroom bi nekk ci avenue Bourguiba wala ngeen woote ci numéro bi vingt 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la corniche ci numéro bi 33 823 77 87 digital store améliorez votre quotidien su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement mbay et frères moo ci mën établissement mbay et frères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 bis ba yayoo géex mooy màggalu go Tuuba mooy bis bi nga tal yorte la yer sa dinaan sawar nga ak di diingat góor ya jëm Tuuba lu jiitu bis ku daa bañ noon di xëy na ko rey ku feex ci diinem na fonkaat màggalu go Tuuba ki tax nga tax soo amee jom war nga koy taxanal ki tax ñu taxa bisam mooy màggalu ko Tuuba di fàttali tuuti rek na ci bis bii nga xam ne mooy bisu màggal gi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom ndax mooy bis bi nga xam ne bu Serigne Touba demutoon ci géej gi kon tey kenn du gore kenn du moom sa bopp kon bis bii moo ñu tax a jot suñ bopp kon sëriñ bi ne mi ngi koy fàttali ñëpp. ku xam ne bisu sant bi nga xam ne cela la sëñ wax ne nañ ma sant le yàlla muy màggal ak Touba sëñ Balla am na cib cër ndax moom la sëñ Touba ne ko wëral nit mboolem taalibe yi yëgal leen ko. muy 18 safar bis màggalu Touba bi nga xamante ni moom la. sëñ Balla moom la ko sëñ Touba dégg digaloon joxoon ko ndigal na ko déggalal frais yi na leen nañ may sant yàlla yàlla ci bis bi ba nit ñi tudde woon ko cantu Balla Fally mos a tabaski lu mos a am ci bis boobu la koy def. nag bu fekkee ci wàllug màggal gi li ma ciy indi moom dama koy tàmbalee ci sëriñ mu dew faxa mi nga xam ni moom dégg naa ci taarix ñu wax ni daane wax ni ku dégg màggal moo la ko gën a dégg ndax dégg na ko ñetti yoon ndax dafa wax ni. moom euh, Serigne Touba yónni na ko ci Seex Balla euh, ni ko boo demee nee ko koo xam ni sa mbég euh, sa mbég la naan ak man sant ma yàlla ci fu bis bi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar diggante ñaari keef yi bu ci waay xeeb lu man bu ci waay naw lu man li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem boo demee ne ko képp koo xam ne ànd na ak man sant ma ci yàlla bu ëllëgee li ma jëlee ci sama tukki bi du la umpu bu ci yokk baat waaye bu ci wàññi baat wax nañ ni moom bi mu yegsee ci taalibeem ci Seex Balla daf ko wax ni ku kaaw yu ku tedd ki bi nga xam ne ànd nañ ñëw ku baax ki wax ko ni ko Balla danga ngaa faf ñëw mu ni tekk di ko déglu mu jaaraat ca bam ca jaaraatee nag moom ku baax ki ni ko am nga ndigalul def ko te wax ko fere yi wax nañ ni bi nga xamee ni génn nañ ñoom ñaar ba tolloo xay gi eh, sëñ mu dew faxa moo téye ci mbuubum sëñ Balla ni ko wat naa ci yàlla soo ma ko waxut duma ko def eh, duma ko wax ndax ci fere yi laa bokk yow mii la ko sëñ bi wax loo Cheikh Balla wax ko ni ko sultaan arifin nga ne lan mu jaaraat ca ba mu ca jaaraatee sëñ Balla wëlbatiku jublu penku sukk ñaari woom ni ko jox nañ la ci ndigal loolee itam euh, taarix bi ma ci am sëñ Abdou Karim moom ko nettali fii wax ma ci booba ak bëccëg goo xam ni naaju tàng na lool bi mu ñëwee ñeewante gi ma am ci moom ndax ginnaaw baar la xam naa loolu la xam ci sama euh, xol di ma tontu daal di ma wax ni kolëre sëñ mu jaw faxa ak sëñ Balla Fall laa doxe woon nii ci kii nga xam ni mooy sëriñ na Jaw faxa di xam leen nit yàlla yëpp bis bi nga xam ne ci la leen euh, suñ borom tegum nattu wala ca sabab sa taxaw mu teg leen ko li ci ëpp ci la koy jeexal. Serigne Touba yi yàlla def bis bii ci la nattu bi tàmbali woon mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ca Mbàkke Baari mu dem ngir liggéeyal Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ay at yu bëree bëri nag mu jóge fa ba dem gànnaar ba jëm dem ci yéen ba ñëw njaareen ba am fa lu juróom-ñaari at. ba 1918 ndax nattu bi daa def saa su waxtu bi accès lu ñu ko masaan teg ci nattu rek bu del siwaatee ñu teg ko mbooleem lu ñu toll ci nattu ba ci at mujj fa nag sëriñ bi du ko fooglu di ko waajal suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak pay ba àdduna di tukki itam nan nattu yi daa demee rek pay gi ne lay jox ci ci ci ci xéewal rek daañu la daañu la joxal ko ëpp. Euh, dégg naa ci taarix ñu ni sëñ màggalam go mujj day rey ba mu jàgg mu ne xar mii maa ko reyal Balla Faali mi ma jot loon ndigal li loolee itam euh, sëñ Thierno ci mag ñi rafetal gi nga xam ni euh, wàlloo nañ ko ci sëñ Touba waaye wàll nañ ko seenu njaboot sëñ Thierno Diaw daa ko def aw nag di ko indi ci kër gi loolee moo taxoon ci li ma sëñ Abdou nettalee mu dem euh, ci sëñ Thierno di ko santi ci loolu loolu itam ci wàllu màggal gi nga xam ni moom moom loolu kon ci laa tàmbalee waaye la cay dolli ko waat it mu jëm ci wàllu gàtti màggal yi nga xam ni Euh, Serigne bala Fall yi doon na ko jox Serigne Touba nangu naa ci taarix ñu ne bi ko jëkkee andil ko baax ki daf koo laaj ni ko ndax cërub Serigne Mirina génn na Serigne Mirina sill bi mu ko waxee loolu mu ni ko déet mu ni ko balaa euh, jur euh, balaa gàttee yeeg yi na nga ci génnee cërub Serigne Mirina loolee itam wax nañ ni mi ngi dox ba fii mu ne nii loolee itam list la boo xam ni képp koo xam ni bokk nga ci njabootu ko Serigne Touba moo xam góor nga moo xam soxna nga dana am ab lim bu yegg ci yow lim boobee itam bu yegsee ci yow euh, la nga xamante ni bii ca la ca kañuy mooy ki fi neel sëriñ bi. Eh, maa ngi fàttaliku ci jamonoy Cheikh Sidi El Moukhtar Mbacké yal na ko yàlla dolli ngërëm moo jullit ñëpp wax nañ ni bi ñu seddalee ba mu des fanweeri xar ak ñaar bi ñëwee ni ko euh, fanweeri xar ak ñaar moo fa des dafa wax ni na ngeen fa bàyyi fukk yi ak juróom-benn fukk yi ak juróom-benn yi ngeen andil ma ko fukk ak juróom-benn yi. ngeen sëñ Abdou Karim Dieng maa ko barkeeloo ci ndigal li Serigne Touba joxoon baayam kon nag sëñ Abdou Karim moomu rek war naa doy firnde ci diggante màggal ak Serigne Balla Fall kon bis boobee nag ci la Serigne Touba digle ci 1918 ci la xëy xam leen ne suñ borom xamal ko ne natt bi jeex na bu agsiwaatee na ko ci ñëpp sant la yàlla li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem kon loolu mooy bis bii nga xam ne ci lañ tàbbi ba yàlla def mu agsi fii tey mooy bis boo xam ne nag. lépp lu ñu am ci lañ ko amee kon sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalibe bi yëpp ñu gën koo fonk te xam ne boo xoolee ci mbindi sëriñ bi fu bari sëriñ bi wax na ko fa fustu la daa galwaa waa inda ba afali ma bihi uniru kulla ma afali ci loolu suñu borom leerale mboolem palaan palaanet ci àdduna waxaat na it ne alaana lil quluba quluba wal abdaana man qaada lii baladil buldaana kon wane ne ne màggal gi adduna sëpp dinañ ko ci kon loola rek mooy li agsi nii ndax ba tey moom moo ma nettalil boppam ni ma bi fi ku baax ki bàyyi ko Serigne Balla day dajale xar yi jox ko Cheikh Mamadou Moustapha mu ne am na ci at moo xam ne nag ki doon séddale nii la ma ko waxee daa fàttee sédd suñ Abdoulahi borom dër bi mu bi màggal weesee suñ Abdoulahi borom dër bi ñëw ni ko Baye Balla xari màggal yi nga doon séddale ren daa ci amut suñu Abdou Karim tegal ma ci ni ma Baye Balla lañ ko daa wax Cheikh Balla Faali ni ko dama ko séddalewut Serigne Modou Moustapha euh, séddalewu ko te kuy sedd da nga sédd say xarit bàyyi xariti jàmbur waaye négal ma ñëw nee na bi mu demee bi mu ñëwee buum la indi takk ko ci sama baat jël buum gi jox Serigne Abdoulahi ni ko sa xarum màggal mu ngi nii bu la neexee nga saam ko fii may jëkk a jënd bu la neexee nga jël ko yóbbu ca jaba jaay njëg jël njëg gi def ci sa poos lew na la domm su la neexee nga yóbbu ko daaru rahman ndax Serigne moomu dem na ba nekk ñaareelu xalifa Serigne Balla Fally Dieng bi mu ko nekkee dem na ba egg ci màggal ni ceeb mënat a ganale kenn kon bu ko kenn toggati ko ne xam na ni ñuy def ay soos ak yeneen yi nga xam ni moo gën a dëppoo ak ndigalam loolu yëpp day wane rek euh, li nga xam ni waxaan na ma ko moom suñu Abdou Karim Dieng ne ma bi ñu nekk suñu ci sëñ Abdoulahi suñu sëñ Abdoulahi Mbacke daf leen daa wax naan ku jeex ci yàlla takk dootoo jeex mu ni te Serigne Touba euh, jeex na ci yàlla kon ku jeex ci Serigne Touba dootoo jeex def suñu itte yëpp muy sunu boroom suñu yënguti yëpp itam nu jëme ko rek ci jàng alquran jàng xasaayit feek bis ba suñu yitte yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku ko man na nga def sa yitte yëpp na nga ci jiital jàng alxuraan jàng xasida ñi nga xam ne dañuy kuréel nañ ca nekk seen kem kattan ñiy durus nañ ca nekk seen kem kattan lépp lépp lu ñu jubloo ko sante sëriñ ko sëriñ bi ak sant ak sant jëmmi sëriñ bi ci boppam sant ko jëmmi mu jooju moom sëriñ bi loolu mooy li ci gën a am solo loolu li ci dolliko nag ñun ñëpp gën a jëfandikoo teggiini taalibe ci suñ bopp ak mboolem gan ñi fi ñëw na ñun ñëpp nañ jëfandikoo teggi ni taalibe suñ digganteeg suñu bopp suñ digganteek mboolem gan ñi fi ñëw loolu loolu lu ci munta ñàkk la ndax teggin mooy li gën lépp kon sëriñ bi ne mu ngi ci soñ ñëpp ngir xam ne màggal gi moom borom defaral na ko boppam ba noppi aajo ju fajoo lu tàbbi ci biir ñaan ko nangu la na ko bëggee saa su accès ndax waxoon na ne àjjana amuti bis waaye buñ demee ba ëllëg képp koo xam ne daa nga sonn ci sama bis bii bu accès waatee da ngay xéwal guddal ko ci yow kon nag loolu lu ci waay defaree sababu mu koy defal kon nag ñu ngi ñaanal bu ñii daanu leer ak wax jërëjëf borom Tuuba mbégum sëriñ baa ngi mooy sunu mbégte nan ci taxaw teeru koog mbég gu njëkkoog mbég ngir borom Tuuba fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar